baal nooy ma ku koy jaay sax ma la bëgg tamit ma jël. bari ko mu xoolal ma jàmb nii léegi ci kàttanu yàlla léegi fii ma toog nii laa koy jaay mu jeex ma demaat ci kaw. mu yàlla noppi na. ah yàlla xale yi nee nañu yàlla kay ñoom kay xale yi nee nañ ñoom leena koor maam Njaay rek ak moom kay xale yi nee moom moo wax kay waaye savon moom baax na jiwam baax na ñun moom rek lañ bëgg yaa ngi dégg moom day dimbale rek xale yi xale yi ñoom kay nit ñi génn naan maam Njaay di ngeen ko a bàyyi dafa fuy dafa réew dafa beew xale yi ne waaw moom kay dafa réew bu ñu paree na ah waaye kay nañu muñ rek moom saabu yu neex yi moo koy defar saabu yu baax yi moo koy defar diw bi laa jàmb léegi jàmb bi diw bi léegi laa ko jàmb laay fan direct laa ko jàmbee abal ma bii laay fan direct ni comme meew waaw maam lu ma jaaxal mooy diw bi comme meew saaw bi comme moutarde man diw bi lu ma jaaxal bii dix mille rek bu 15000 mi la dama la koy ko 10000 ba pour mu yéeyee nu ma koy ubbee nag. maam yëpp de na moom la. waaw na ko foo indee.